Euh, en tout cas déchaîner euh, une telle polémique. Mm-hmm. donc euh, vraiment concernant cette nomination de Khady de de Asma Asma je crois bon en tout cas lu ñu ci mën a wax daal mooy les gosses les patriotes. Mm-hmm. ñoom seen wàllu bopp wane nañ seen désaccord par rapport à cet éventuel en tout cas cet éventuel recrutement xawma ndax am na xamaguma ndax am na mais nit ñi daal jàpp nañ ne du recrutement boo xamante ni ñoom dafa aligné wu sur leur valeur. Euh, ku mel ne Ahmed Suzanne Camara li mu wax mérité nañu tëj ko. mais jibi xam nga pour le cas d'Ahmed Suzanne Ahmed Suzanne vraiment ñu baal ma ci kàddu gi mais pour man c'est un détraqué. maanaam. non saa di dire koo xam ni xel mi neexul. Mhm. entre xel parce que dafa am loo xamante ni pour man jàpp naa ne su fekkee ne da nga jàpp ne homme politique nga homme politique nga toog di ko wax. Mhm. pour man jàpp naa ne sa xel am na lu ci des. parce que am na loo xam ni tey soo ko dee wax nit li waa ji wax rek effacer nit ki jël sa waajur nga teg ko foofu ndax di ko xool doo ko wax. Mhm, dëgg la comme ci mën a nekk rek cest à lépp lay wax rek jëlal nit ki jëlal sa waajur teg ko à la place bu fekkente ne yow jàpp nga ne soo ko waxee sa waajur doo am dara lu ci naqari su boobaa mën nga ko wax kilifa keneen. Mhm. mais li wóote woon ne wax Diomaye ak Sonko nga xam ne c'est les deux fortes personnalités de l'État. la mu leen wax tey moom bu doon waajuram loolu du ko wax. Mhm. bu doon ko ko jege loolu du ko wax. Mhm. mais man ñoom Ahmed Suzanne Camara du ma leen wax dara. lu tax doo leen xam nga kan laay wax. lan c'est le procureur de la république. Hmm. parce que le procureur de la république. qui est censé dans de pareils cas s'autosaisir. or on était dans un régime dirigé par Macky Sall. Hmm. mais le régime dirigé par Macky Sall il y la séparation du pouvoir. même si on dit que le procureur de la République il est sous la coupe du ministre de la justice le ministre de la justice est sous la coupe du président de mais cela n'empêche pas moom am na benn liberté boo xamante ni bu nit defee lu dul yoon. jëmale ko ci kilifa gu mën nekk que ça soit de l'opposition ou bien que ça soit du pouvoir. mu war a ko mën a jël teg ko loxo. teg ko loxo. Ahmed Suzanne Camara a appelé au meurtre ici de Sonko boobu moo gën a graw rey ko. mais xool le de la République a profil bas. Mm-hmm. Pape Malick Ndour étant ministre a dit la même chose. Mm-hmm. le procureur la République a fait profil bas. Mm-hmm. Ahmed Suzanne Camara s'est prononcé sur l'affaire Fulbert Sambou et Didier Badji jour boobu man maa nekkoon RT euh, comment dire maa nekkoon Sen TV. ba muy wax lu ma ko ma ne ko Ahmed Suzanne Camara ma ne ko yow mii procureur war na laa woo mu ne ma na ma woo. nga loolu. mu ne ma woo parce que ñoom li tax ñu rey leen ma ne kon yow xam nga ne kon dañu leen a rey. et pourtant au même moment Fadilou Keïta avait dit que j'espère qu'ils n'ont pas tué mon frère mm-hmm. mu wax ko sous une forme de questionnement parce qu'il n'a pas affirmé mais c'est un questionnement ñu jëli Fadilou Keïta tëj ko presque pendant plus d'un an pendant un an mm-hmm. Fadilou Keïta ci lool rek au même moment ka taxaw wax affirmé nañ ma nañ ma jël si non parce qu'il était en train de plastronner dans la ville lu tax parce que simplement c'est quelqu'un qui appartient au camp du pouvoir procureur su demee bay xool ku far ak nguur ku farul nguur procureur boobu moom jàpp naa ne mënatul procureur kooku dafa war a sumbi mbubb sa toge de de de procureur dem wuti beneen liggéey parce que justice nag boo déggee ji ñu koy wax. Mhm. mooy balance la balance bi xam nga mooy lan. Mhm. mooy da ngay équilibré. daa war a équilibré ko mais bu fekkee ne balance bi dafa jàng foofu justice amatu fa or sous le régime de Macky la justice là dañu jàng. je ne parle pas la justice mais ñi nga xamante ne ñoo nekkoon au premier plan dañu jàng. ñu doon xaar ñu wax. waaw ñoom il ne poursuivait que les gens qui étaient avec le Pastef ou bien ñi ngi jàpp ne dañoo bokk ak Pastef. jàpp ne dañoo bokk ak Pastef quoi. Ahmed Suzanne la li mu wax mais wax na lu ko gën a graaw nee la appel au meurtre dara gënu ko graaw te kenn wax ko dara Ahmed Suzanne Camara lii mu wax nii tey nii wax ko ñoom Sonko ak ñoom Diomaye mais su ko waxoon pendant le régime de Macky Sall kenn du ko inquiété. mais man kon nu may mën a hmm? comprendre sànq nii ma gis Abdou Mbow di wax ne du ñu bàyyi benn yoon forfaiture lañ nekk di dund fii ana forfaiture. waaw mais non xam nga ñoom Abdou Mbow moom Abdou Mbow sax il utilise les mots muy tekki xam lu gën a bon mooy ngay utiliser chaque fois ay mots te xamul mooy lu muy tekki. kon mots yi muy jël daal non non non xa dans ce cas là. nga mën a ay forfaiture lu mu fay lu mu fay wut. le mot forfaiture la xam ku ñëw rek balance rek forfaiture forfaiture. mais nañ dem xool forfaiture lan lay lan lay tekki. Hmm. xamal des gens comme Abdou Mbow man pour man jàpp naa ne aujourd'hui ils n'ont pas voix au chapitre ñoom amuñu lu ñu wax parce que li ñu fi def seen régime baa ngi ne weñ et je crois que sous ñoom danañ xam li ñu fi def lan mooy lan mooy lan mooy conséquences yi donc pour l'instant parce que la justice n'a pas encore été activée moo tax ñu bëri ngay dégg la ñuy seen làmmiñ di rëy rëy leen di wax mais quand on va déclencher les poursuites di nga dégg ñi fiy wax yëpp ils vont se tasser dinañ dinañ dinañ noppi Hmm. donc revenant au cas de Ahmed Suzanne Camara. Ahmed Suzanne Camara. il s'est inscrit dans la même lignée que les Bah Diakhaté et tous ces gens là yi toog di wër di saaga ñoom. ñoom mais pourquoi insulter sax à la limite. moom laa la wax non xam nga tax insulter mooy parce que tout simplement c' est des gens qui sont incorrects c' est des gens qui sont mal éduqués c' est tout tout simplement loolu rek du lenn moi je crois que aussi il il de la responsabilité des journalistes parce que wax ba pare. au lieu de freiner cela dañuy bàyyi ba affaire bi dem ba tol benn niveau bi ñu door a commencer réagir. Mm-hmm. or ñun ñi nga xam ne nous sommes dans la presse écrite tey boo fa bindee lenn loo xam ne gën na fa yow dañ ko jël teg ko sa ndodd yow en tant que directeur de publication. ça signifie que aussi médias yi nga xamante ne ñoom ñoo leen di jox micro yi ñu ciy wax médias yooyu ils ont les mêmes responsabilités que ces gens-là qui sont en d'insulter les autorités euh, euh, comment dirais man quand j'ai été convoqué au niveau de la sûreté urbaine. Mhm. benn article ñu génneel ma ci. là on a dit un professeur un un un procureur indigne on me souligne ça bu ma def indigne dama dama saaga procureur indigne. loolu lañ la waxal. voilà ce que l'on ñu ne indigne. yow indigne lañ la waxal indigne ta xool te loolu sax man binduma ko loolu ki ko bind c'est un magistrat comme eux <laughs> ñu ne way indigne c'est un mot outrageant donc. offense foofu je ne sais pas outrage à magistrat indigne teg la liñ laa la wax indigne fii am lu mu wax président wax ko premier ministre toog fii amul lu ñu yàqul premier ministre kon xanaa ñi tey man de man de man de buñ ma doon tëj un mois xanaa kon ñii war nañ fa def au moins douze mois waaw indigne moom parce que pour man jàpp naa ne entre les deux ça y a même pas photo donc pour dire tout simplement que ñoom Ahmed Suzanne Camara li ñuy def nii buñ ko stoppé woon ca booba kon lii dañu yegg si fii quoi lu ñu bari gis nga justice gis nga justice la justice n'a pas de couleur la justice n'a pas de parti la justice n'a même pas c'est-à-dire la justice s'inscrit dans une atemporalité mm-hmm. parce que su fekkente ne yow da ngay calculer ci yenn ay séquences temporelles ne ci lii ñii ni laa war a bu ñuy ñëwee ni laa war a man jàpp naa ne ñooñu matuñu li nga xamante moo tax ñu koy liggéey tey mm-hmm. progrès bi nekk fii muy que ça soit les gens de Pastef ak ku fi mën nekk cest nit ñi tey lu ñu fi mën a def dafa war a dal seen kaw pour servir d'exemple. mais kon waaw ah. kon Serigne Saliou est-ce que cas beneen bi mooy le cas de Lat Diop. waay mérité wul tamit ñu gën ko tegaat ci table bi quoi. waaw ah, mais xam nga Lat Diop moom il a été déjà auditionné. waay déglu nañu ko quoi. xam nga déglu ko. waaw ah, mais déjà déjà c'est un premier pas. mais dañ ko war a dégluwaat. parce que confrontation il faut mu am entre moom ak ki nga xamante ne moo ko tumal affaire bi. Mm-hmm. parce que moom comme ko déjà déglu nañu ko pare. certainement que il a nié d'ailleurs c'est ce qu'il a dit hmm. que moom waxul et cetera léegi il faut faire la confrontation entre moom ak ki nga xamante ne moo ko waxal loolu police ñoom waa gendarmerie ñoom suñu defee seen liggéey dinañ xam mbir mi lan moo ci dëgg lu ci dul dëgg moo ci dul dëgg donc je que aujourd'hui il faut que parce que moom nee na day jox que les citations directes non jaaru ko parce que déjà je que au niveau de la gendarmerie les gens déjà entendu ñu war def kay mooy ñoom dañuy def toog di def ñu def seen liggéey su boobaa ils seront édifiés sur la réalité de ce milliard là dont parlait le en tout cas euh, l'accusateur de de de Lat Diop. Mm-hmm. waaw mais comme que la on l'a déjà entendu ça signifie déjà il y a parce que y a tellement de gens aujourd'hui des gens de pouvoir ñi nga xamante ne war nañ leen war a mën a déglu. xam naa ne bu à la fin quand on reviendra sur. les vingt neuf milliards là dont je parle dans Yor Yor mais loolu aussi c' est un xam ni lu ñu war a mën a toog ci wax ko taabal ci. mais man doo ma ci may ah. tuuti. milliards yooyu noonu doo ma koo expliquer. non mais en fait vingt neuf milliards yi c' est un marché de construction. Ah. bu le directeur de la LONASE bëggoon a lancé pour la construction de quatre immeubles. boo jëlee total bi ça te fait vingt neuf milliards presque trois cent millions et quelques. Mmh. mais loolu sax bu fekkante ne jibi dafa jaaruñ ci appel à concurrence mm-hmm. problème du ci am parce que loolu su boobaa ce serait dans la transparence mm-hmm. du dëgg mm-hmm. mais Doura Baldé n'a pas fait ça moo nekk nii mu ngi noonu il n'a pas fait qu'est-ce qu'il a moom lu mu bëggoon dans un premier temps il a demandé à la DCMP que ñoom que il y a l'urgence comme que il est dans l'urgence donc dafa war a def marché de gré à gré ba choisir moom ñaari entreprise am yoo xam ne ñoom la war a jox mbir mi. ku ci nekk ñaari entreprise am ku ci nekk c'est-à-dire yooyu ñoom dañu def genre groupement solidaire pour ne ñoom ñooy tabax les quatre les les les quatre bâtiments yi ñu facturé boo ko calculé ça fait vingt neuf milliards trois cent nangam millions. ci réew yoo xamante ni j'ai dit marché de gré à gré. alors que lu ñu wax dañ ne délai d'exécution bi c'est sur trente mois. foofu dafa am urgence. déedéet loo xam ne délai de gestion mois xam nga boo déggee ñu naan urgence mooy tey ñu ne inondation am na léegi léegi léegi ñu ne tey.